di may seen revue de presse yéen kay ak Alaaji Ahmed Aidara bismillah talaatay démb ji day ah kenn du ko fàtte de déedéet terminé dama ne musiba ci kaw musiba musiba ci kaw musiba day moo raw talaatay ndeer maar day taali waaw parce que nag am na ñaari xale yoo xam ni kon ay poto courant ñoo dama ne la am na keneen koo xam ni kon am na ay gaañu gaañoo mi téemité yóbbu day te suma yun la ko gis ñetti doomu aadama bokk na ca benn vétérinaire yoo xam ne dañoo réer ca Podor benn néew boo xam ne day ca njaareem dox laay ay talaatay démb ji lee bog sobli ne gis nga poto courant boobee eh, Sénégal ko ko moom ñaari xale inna lillahi wa inna ilayhi rajiun saxaar yàlla la dee moo poto ciment yi waaw nañu ko jalee woon ca boppam nag moo baaxul ca booru teenee jubo waa Sénégal ca boppam nee neen danañ ci ubbi ab enquête enquête yu xam ne day waaw l'observateur nee na def nañ ko nag ci lu kon ci wàllum góor ak jigéen lu tolloo fukk ak juróom ci ay soxna yoo xam ne dee leen a rey allahu akbar junni ak ñaari téeméer waaw ay jàngalekat yoo xam ne ña nga nekk ca université Gaston Berger ca ñoo ko def yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne wàllum justice waaw ay satu Seydi dee nekkoon jabaru Jóob Seck waaw gendarmerie déglu na ko dee mar di tali la ilaha illallah dama ne la démb ay satu Seydi nekkoon jabaru Jóob Seck Dakar Times ne pourtant budget 2021 bi day waaw ay milliards yi milliards la ñu di tegle leen ndaw yi lée ak soxna yi te gis nga na xeex nag lu ne suñu fi an ardi taali Mignane Diouf a ah, ah. na daa war di ànd ak ajëf suñ duudaaram des d'investissement dëgg la waaye itam nañuy yombalal gone yi lée bu ñuy tukki loolay dëgg de le témoin yéene kaay ne xam nga bu ñu demee ne ko wàllum ndóol gi di suuxa Barça jeeg Balzac ji ndóol gi la de parce que gone yi jàkkaarloo gi xam ni kon ñu ngi ko jàkkaarloo coono di wàllum galère gi lée ñoom ñene ca banlieue ba waaw moo tax nu mu gën a rek tukki rek a rek mar di taali dama ne la gis nga Mamadou Lamine Faye waaw moo jëloon doomam joo xam ni kon gën a gàtt amagul sa fukki at ak daal di koy dugal ca gaal ga ngir xale ba dem Espagne day waaja dama ne la mujj nañ koo jàpp maa xale ba ca kon ba gaal gay jéggi di dem moom duudu mi ah dee ñu jël ko sànni ko ca biir ndox ma la ilaha illallah évidence yéene kaay ne ba sax di xam ni kon dafa dellu sot yi waaw waa pale ba dañ na pat dama ne nguuru Macky Sall ji ci boppam kon li rey ci ay doomu aadama moo ëpp li corona gi rey dëgg la ay frontière am te dafa fas yéene rapatrié nag léegi nag ci indi ko ne ñu takku sax le quotidien ba ñu nekk ci internet bi te gouvernement bi nag mi ngi ne pat pataaral ñu ne déet ni waay mu bëgg a soofandal kon wàllum dëj boobee loolee la ñenn ñi kon di naxarlu nag la wax Mamadou Lamine Diallo day ci di ñu yi na dama ne la Macky Sall ci boppam kon moo dem ba ne ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards di trois cent cinquante Sénégal ah. ci kon bi nga xam ne kon waa BBC na ko Macky Sall mi la waaw Abdoulaye Wade dee sib na ba Abdoulaye Wade sib na ba laa la wax réew mi waa PDS kay nee nañu lii ab coalition waxaale la waxaale politicien dëgg la sax comme kuy waxaale fëgg jaay de marchandage politicien les ko yéene kaay ne dama ne Abdoulaye kay ubbi na musiba mbaa bokku mba nii ci kaw Macky Sall safara la ubbi ci kawam de ak ñi ma àndal waaw parce que Abdoulaye Wade waa këram nee nañ la woo xam ne tey dañu ko négocier fu Sénégalais yëgul négociation secrète te dara waralul négociation yooyu yee lu dul wàllum na nee na parce que gis nga gouvernement bu bees fii waaw indiwul dara lu bees foo ko méngaleeg li Macky Sall daan def 2012 ak léegi ni lé mburu foofu ko fëri benn la musiba ci kaw musiba di ay scandale économique wàllum koppar wax wax xeet kàcc ak fen ay calcul politique di nax askan wi rek looloo fi ne ba tey direct news de Ablaye Wade dee génn na capataaralam nga dee ba noppi nag daal di taal jaxal na kon gouvernement bu bees bi la parce que Ablaye Wade waa këram waaw nee nañu Idrissa Seck wane na ay firnde yu leer ne dialogue politique national boobee ñu doon def nekke nekkul dara lu dul wàllum naxaate tey yorinu farfarloo gi nga xam ne kon laluwul ci wàllum sellal day tax nit ñi gën a bañ politiciens yi rek critique yéene kaa ne waa kër Abdoulaye Wade yi ministre de l' bu bees lé di Antoine Diome waaw d'accord uñu ca de yow ab xam ne dañ naan ko waaw mu ne waaw déet mu ne déet Antoine Diome yënguwul ci tëddee njaaxaanaay les si ko yéene kaay ne waa sur yor information nguur gi lé waaw démb day toroxal nañ Idrissa Seck dañ koo vilipande kay jëlee nañ ko photo angle bu ne pour wane ne kon Idrissa mi ci ginnaaw Macky Sall laa wax yéene kaay gi ne waaye Idrissa Seck tamit cabinet Mimi Touré ba le ca conseil économique waaw dàq xaw ma ñëpp la di dàq Tribune yéen kaay ak laas Alaaji Malick Gakou day waaw dama ne leen ndaw yi nga xam ne ñoo ko nekkee ca jidda caaray koo gële nee ko du ca dali déedéet dem ca Macky Sall moom ñun waa grand parti duñ ci d'accord tey te duñ ci d'accord ëllëg la wax xale grand parti yooyee waaw nee nañoo ànd bi Idrissa Seck ànd ni le ak Macky Sall day combine bu rëy la te Malick Gakou du daanu ci pièce boobee xale yi ko du dem de évidence yéen kaay ne en tout ca daka leen ñoom ñëpp daa yor yab yi yor karoot bi di doore di neexalaate ñi nga xam ne ñoo gënoon di attaqué Macky Sall laa la wax maître Ousmane Ngom mi lé Samuel Sarr maître Souleymane Ndéné Ndiaye Aïssata Tall Sall Oumar Sarr maître El Hadji Amadou Sall ak Idrissa Seck waaw ñoom ñëpp ca moom léegi Ibrahima Dieng historien waaw nee na daf ci am ñoo xam ne kon ci wàllum opposition bi la ne gëmuñ sax seen bopp laa la wax suñu demee ba teraanga ji commencé jeex juróomi at juróom Xaadim Ba daal dinay gagné coowalu ko Afrique la évidence yéeni kaay na Xaadim Ba gagné na Baye Bari Le Quotidien yéeni kaay ne déglu bi nga xam ne nañ ko ko déglu nag ca conseil de discipline ba waaw Souleymane Teliko ñaar fukki fan ci weeru novembre bi la waaw dana dem wuyu ji de kay justice bi la mo <laughs> justice bi xanaa daa fàtte timis ak takkusaan waaye nañ xam ne suul gaz du ko teree xeeñ de walaay te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën na la alaaji ay ndaw bàyyi nañu leen niki démb ginnaaw ñeenti weer yoo xam ni def nañu ko ci kaso bi ñu interpellé woon leen dugal leen kaso ndax nee nañu dañoo sulli woon ay borne ci ay lotissement yu ñu defoon te xëy na seen i tool la ñoom ñu doon ko muy seen i tool yi bàyyi te amuñu ci benn xibaar lu du rek ñu ni mairie ba lu dise na ko ay kër loolee nag indi woon coow ba tax ñu teg loon loxo ki jiite commission nationale du dialogue euh, des terri euh, des territoires tudd Benoît Sambou moo ci def ay ay jéego ba jàmm dellu soit daal am ñu daal di libéré ndaw ñooñee immigration clandestine mu ngi continuer def ay njombe ñuy dëkk ñuy dox ci dëkk bi di for ay néew ndax démb ci quartier bi tudd goxu Mbàcc Saint-Louis nappkat yi daal dina ñi eh, gis daanaka lu doy waa ci ab néew boo xam ni feeñ na fa ñu daal di alerter sapeur pompier national ngir identifier boobu la néew nañ ci dellu soit ak Babacar Niang fii ci Dakar itam ñu ngi fori néew ndax euh, démb ca Soumbédioune itam am na benn néew bu ñu gis fekk mu yàqu yaxee daanaka ca saasa lañ ko daal di suul foofee ca Betuwaax ginnaaw bi ñu ci amee ndigalal kilifa yi ndax mënu mënatuñ ko identifier ndax dafa yàqu yàqu gu doy waar waaye amuñu sikki sàkk ci ni kookee ku bokk la ci ñi faatu woon ci géej gi doon dem ci Espagne Fatou Laye Mbaye Diop leneen lu daw yaram askan wi dundaat ko mu doon ab ndaw faatu daal di teer ci géeju Soumbédioune ñenn ñi naan doon na kenn ci ñi nga xam ne rek jamono ji doon nañu dem ci mbëkk mi ba daal di ciy faatu. loo mënti dégg rek mooy nañu fexe sensibiliser xale yi waxtaan ak ñoom xool nañu leen jàppale ut ay moyen teg ñu xaw a dindi lii tuuti parce que lii bu continuer nii dinañu jeex takk xëy na booru géej gi fii lañu dëkkee fii la ñuy nekk. ñun par incidence rek lañ jékki-jékki gis lay taw suñu kanam am ay mool yu baax yem si takk ko diri ko indiwoo woo yi ñu ñëw ñu jenc ko fii. lii xew nag yeewaat ab méttit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy nappakat yi. Sénégal moom metti nguur gi jàppalewul génération bi ñun waaw ñun jeunesse bi danoo sonn sonn nan taaye nan amuñu liggéey amuñu dara. moom ndaw bi lay faatu daanaka néewam yàqu na loolu. Basaax dañu ko mujj denc ca sëkk ya nekk foofale ca Soumbédioune. Fatou Mbaye Diop sénégalais yi nga xam ni bis bu ne ñu dégg ci ay ndaw yu disparaître ci géej gi te xam nga erreur ci géej moom tu tubarkàlla la tu fekk nekkoo ci gaal yoroo gilet de sauvetage nekkoo ci bant nekkoo ci samraal nekkoo ci gurt <laughs> daanaka ku ne xam na la muy tekki. loole nag muy gën di bëri saasu ne ndax ne nañu dañu bëgg am dund gu gën gi ñu am fii ci Sénégal. xanaa xëy na mën nañoo njoxti ni Eldorado moo nekk ci bitim réew mën naa nekk itam njumte en tout cas bari na ay doomu Sénégal yu nekk à l'étranger ci Europe euh, ni kii tam euh, ci euh, États-Unis ñu samp ay laaj ci ñu joxe seen xalaat ci seen situation ngir ñu mën a yee doomu Sénégal yi yi taañaañalu ci biir géej gi reportage yu Mohamed Seydi Mohamed Seydi suñu ndaw ca États-Unis defal ñu reportage ci introjay sénégalais yi nekk ci Europe ak Amérique ngir xëy na seen message ñoom ñu fay dund ñu jëmale ko ci ndaw ñi ci seen xalaat bi ñu joxee ci wàllu euh, immigration euh, clandestine euh, Mohamed Seydi kon jàppandiwul xëy na dinañ ci dellu saa su su ñeneen i xibaar démb itam am na musiba bu am ci quartier xaar yàlla ndax benn société bu jël ay poto làmp yoo xam ni ciment la teg ko ci benn terrain football daf ko faas toge woon xam ngi ni xale nag fu ñu gisee yu dajaloo yu mel noonee dañu fay nekk di fo nekk te xëy na nañu tegee poto ya baaxul poto ya daanu ci seen kaw am na ci ñaari xal yu dee ca sa am na ci itam ñoom may gaañu gaañu yu metti nañ ci dellu seeg Fatmata jot sama doom foofu laa ko bàyyi. amoon na rek tiis ak moom la ñu mën a nemmeeku ci xar kanamu wayjur bi nga xamante ne dafa ñàkk doomam ci lu nu mel moom nag kenn mënu koo téye ndax ay rangooñ mu daal di ñàkk doomam bi am ñeenti at. fekk dekk nañ ba naa su ma ko jox ma xaalis mu jox ko 100 francs mu yëg si kaw mu bi xale bi mu gaañoon ko mu ngi wàcc dem teere situation bu ñu mel nag askan wu yeewoo ci xar yàlla di ko naqarlu jàpp ne lu nu mel tayeef la bu jukkee ci entreprise bi. bàyyi ba guddi ba ñëpp tëdd. ñu ñëw teg fi poto yi malheureusement ba ñu yeewoo suñuy doom suñuy jarbaat ñëw di foo ci poto yi euh, poto daanu seen kaw am ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan am ñeneen ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti. taxawal nañ ab collectif te fas yéene yóbbu mbir yi fa ma xana doonee benn. moo tax it waa xaar yàlla booloo nañ jël avocat dinañ ko yóbbu ci yoon parce que li ñu def euh, dañoo jàppee xaar yàlla ay naqasa terrain de football bu xar yàlla bi nag daa mel ni dencukaay mbalit bu ñu sukkas sukkandikoo ci askan wi ba tax na nee nañ lépp la ñu fay teg ba moo waral accident yu nu mel di fa am. Fatmata Diop en tout cas chef de quartier ba nee na dañoo mujj soppi seen quartier ba mel ni dépotoir lu waay buub ñu xëpp fa lu waay di denc ñëw denc fa loole mooy dakk te poto poto yooyee sax nag euh, jox nañu waajee kaka moom wala société ba deadline 24 heures na ko fa jëlee nañ déglu chef de quartier ba Mamadou Cissé. Ils dañu waroon dund dañu waroon tekki ay nit ay baadoo la ñëw teg fi lii rey leen dem seen yoon et li gën a metti mooy ñi leen rey ba léegi xamaguñu ñan la ñun xale yi bu nu meroon ba agir ñu ne ay wëyu lanu ñun na xaar yàlla amuñu ay wëyu ay xale yu yaru lañu am tey ci suba ba nu naree dem taali pëneeg foofu dañu ñëw wax ak ñoom ñu bàyyi mais nag mënul continuer ci loolu lii il faut mu dañ fi et ñi ngi wax autorité yi en particulier le président de la république Adama Faye nekk itam responsable politique APR ca quartier ba dénonce bi la situation te ni faaw ñu ubbi enquête xam responsable société bi te Senelec na gaaw leeral lii digganteem ak société bi ndax mënu ci tëb tëb rek dégagé noonu ay responsabilité am ginnaaw bi mu ñaawloo itam def def yu mel noonu Adama fay ñu déglu ko. ñu ngi ñaawloo bu baax incident bi nga xam ne am na tey xar yàlla ba ñaari xale ñàkk seen bakkan ak kenn koo xam ne dafa buy liggéey war na mën liggéey liggéey boo xam ni day liggéey bu wóor nga xam ne kenn du gaañu moo xam ñi koy liggéeyal moo xam population bi nga xam ne dañuy dëkk ak nekk si ne bu si nekk mën na jël trois tonnes teg la ko foo xam ne ay xale dañ fee foo ci kenn du ko surveiller ba mu daan si xale yi ba rey fa ñaari xale loolu dafa metti du dëgg yoon ñi ngi ñaan nag état Sénégal mu mu jël ay matuwaayam xool ñan responsable yi mu teg leen daan ñi ngi ñaan tamit Sénélec di ko wax mu te bakkan dara mënu ko remplacer. bàyyeeko ci Adama fay responsable politique APR foofee ci quartier ba di xaar yàlla muy dénoncer li am foofu foofule. néew nañu am benn bis te dégguñu ay ndaw yu dee ci géej gi wala ndaw yu jël géej gi ni dañuy dem Espagne te ñu ëpp ci ñoom dañuy dee loolee doon jafe-jafe gu day laaj nag ñu samp laaj ci doomi Sénégal yi dund ci bitim réew ndax ñu nekk fi dañoo foog ni fële Eldorado maanaam dangay dox di fa xaalis <laughs> dund ga gëndang fekk na situation bu demeewul noonee en tout cas mooy li tax ñu samp ay laaj ci doomu Sénégal yay dundu ci Europe ak ci Amérique nu ñu gisee situation migration clandestine bi jeexal ndawi waxambaane Sénégal yi reportage bu Mohamed Seydi daw di dem fi nga xam ni boo fa àggee ñi nga fay fekki ñoo ngi jooy ndax dara amatu fa bokk na ci tuskare waral waa ji lépp turam nekk Espagne di dénk lii ñuy na taax saa si daanaka da nga koy dégg. Moodu Koné nekk Allemagne. situation Covid nii ba mu ñëwee fii bari na africain yoo xam te ne ñàkk nañ seen job ñi nekk Espagne bu ñuy waxtaan waa France waa France ñu naan France dafa métti amul liggéey liggéey daanaka wàññeeku waa Allemagne amul liggéey nga waxtaan waxtaan ak ñeneen ñu ne fii amul liggéey ni mu liggéey na jamono ji ba tax ne lii la leen tegal moo du ko ne jël gaal di ñëw du pare jël ay gaal parce que les Européens sont confinés ñu yor entreprise seen entreprise ñu wàññeeku du coup on recrute plus Europe dafa métti waral ñoo ngi uti yeneen réew te am fa yaakaar Canada bi maa koy liggéey ndaxte bëgg naa dem Canada sérieusement fekk année prochaine incha xool foofu ñu ma mën a jàppale am contact agence mën ma utal liggéey ñu xam ne nit am na fooy tollu kenn warul la jugé ci choix yi ngay def da ngay sës ba mu jaral la yenn yi Sénégal métti na waaye laataa dem saytul fi nga jëm ndax doo fa gën a tumuranke instant yi kuy voyage kuy tukki dabal états waa nga dem Canada Europe du Eldorado de du li ñuy foog de bu mën góor yàlla mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Europe bi non dafa métti mu doon Mouhamed Seydi pour groupe des médias ak lay jaajëfal Mouhamed Seydi na ndaw ñu dégg kon du Eldorado ko ne xam nga ni neexaatul moo fépp a yam takk rek sa ndigg te fas jom nangoo liggéey dóor waar ku ne xam na nag Sénégal moom daanaka euh, gannaaw lay doxee ndax sa ngéem na lool. am na benn atelier boo xam ni dañu ko amal ñi ko amal mooy acteurs yi nekk ci système éducatif bu Sénégal sabab bi mooy xëy xool balaa ñu ubbi école yi ci yenn condition lañ koy ubbee muy année scolaire deux mille vingt deux mille vingt et un faaw ñu respecté protocole sanitair bi ndax Covid 19 ba léegi mu ngi ci mooy li tax yi nii. Euh, lu néew néew néew moom loolee mënuñoo ñàkk sàmm wanteeg moom naka gouvernement bi xam njiital CUSEMS Abdoulaye Ndoye la tudd nañ ko déglu. waa Até Bor Faye accord ñu ngi ko cité depuis le 30 avril 2000 ñu ngi ko signé depuis le 30 avril 2018 tey mu ngi def presque deux ans. poñ yu ñu doon waxtaanee fukki at ci gannaaw. poñ yooyu moo teguwaat ci table bi mooy système de rémunération mooy lenteur administrative mooy également sur imposition boo xam ne injustice boo xam ne def nañ ko jàngalekat yi donc nag ñun lu ñuy xaar ci nguur gi di gërëm jàngalekat yi baax na président def na ko ñëpp def nañ ko parce que jàngalekat yi tey dañu mériter reconnaissance sociale et politique mais lu ñuy xaar ci nguur gi mooy jëfee ce sont les actes qui déterminent de la valeur des hommes lu am solo moom la waa Union nationale des écoles privées laïques di Sénégal def ndax accepté nañu requête bi bàyyeekoo ci waajur yi muy ñu fay rek benn weer bi ñu arrêté woon daaw di mois de mars euh, plus inscription yu ren yi ak mois de juin loolee euh, ginnaaw ay waxtaan yoo xam ne def nañu ko kon ñoom def nañu acte bu jëkk bu rafet lool bu école privée yépp lañ ci war fekk si nag ndax fay la nit ki loo ja ko jàngalul doomam amul fenn mooy li tax ki jiite euh, way juru ndongo yi ci boobu la école di ñu expliquer nañu jubboowee ak ni mu ko rafetloo Insa Diallo nañ ko déglu. parents d'élèves yi waxtaan ak déclarer responsable dans l'intérêt des enfants ngir xale yi. bi ma xalaatee ne. day indi jafe-jafe. may laaj mois de d'avril. mois de mais ak mois de juin day indi jafe-jafe suñu digganteeg parents d'élèves yi. di ñëwee ñu won ma ne ñoom day wax dëgg yàlla nekk nañ ci jafe-jafe parce que mbas mi ñëpp la laal. alors ba nga xam ne biñ ma ko waxee may leen léegi da fan ngeen mën a yem ñu ne ma mars ma ne leen fay leen mars jàmm ne ñooy. a ah, ngeen réinscrire ci lañ nekk ci lañ tënku. te amul benn jafe-jafe. muy jéego bu am solo nag bu ñëpp war a saluer ndax ñu jiitu ci ndax xam ngeen ni bras de fer bi metti na école di ubbi suba ak jàmm te jubóoguñu ba léegi am na école privée yu ŋànk fa ñu ŋànk bëgg fayloo way juru ndongo yi lu ñu jàngalu seeni ay doom kon bu union bi boot école lay euh, defee lii muy acte bu njëkk lu ñëpp war a rafetlu la te toppandoo leen ci nag lu baax dañ koy toppandoo waay Euh, fële ci diwaanu Yarax moom euh, nee nañu ubbite l'école yi daañu jël seen ay matuwaay respecté protocole sanitaire bi donte maire ba teewul ba léegi am na tiitaange ci kaaraange tuut tànk yi Babacar Mbeng nañ ko déglu. xale yi il faut que ñu ñëw école mais bu ñu ñëw école il faut que muy amu si noonu nañ leen di teeroo ci école yi te ku xool li fi nekk ci lave-main li fi nekk ci produit li fi nekk ci masque dafay méngoo à fañ ko fañ ko soxla donc lu taxawul la ñëpp xamoon nañ ko alors ñoom ñu ñëw collectif des directeurs d'école ax mairie bi biñ ca àndee waxtaan ak ñoom ñoom ñu ne ah am nañu xalaat bëgg nañ ñëw looloo waral directeur général bi ak équipe bi mu àndal yëpp ñoo ñëw fii tey vraiment pour bëgg ñu accompagner gunge ñu ci lii nga xam ne mooy euh, en tout cas ouverture scolaire mais aussi assister centre de santé yi mbaykatu ceeb yi nekk ca euh, dëkk bële féete bët gànnaaru Sénégal di mbundum union ñoo union de mbundum nekk ci commune ba ronq tiit nañu bu baax ndax mauvaise campagne bi ñu nar a am campagne agricole inondation yi bëri na ceeb ba màggul te yaakaaruñu lu dul mbayum ceeb lu tollu ci deux mille cinq cent hectares yu ñu war a ci wàllu ceeb boo sàgganee lépp dafay gasax jamono ji moom kenn ëpp leen tiitaange ñoom béykati ceeb yi ci bët gànnaaru Sénégal Babacar gannaaw jawaar ak mbundum barrage béykatu ceeb yi nekk ci xënn village ñoom tamit génn nañu wane seen naqar ak seen jaaxle gannaaw jafe-jafe yu métti yu ñuy dund ci tool yi Ablaye Sall Ndey Diop Bay Dala gay ñoo yore seen kàddu nit ñi dañuy am baisse de rendement ñu jóge ci loolu dugg yaakaar naa dem nañu ci tool yi gis ngeen euh, contre saison hivernage bi nga xam ne dugg nañu mënuñu remboursé bor bi mu indil nu tolof tolof amatul luñu dunde suñu jigéen ñi nekk ci gewe gi di dem ñun ñu nekk ci di souffrir ñu defar ko ba toll ci moment bi mu ñor maturité bi lekk jinax yi commencé ka lekk nu koy jooytu gisuñu kenn ku nu ko. tey nag ñëpp teg nañu seen bët mbay mi mi ngi yàqu ba pare xiif mi ngi leen di yoot bokk si yeneen jafe-jafe yu mel ne enclavement mbirum wérgu yaram ak njàngum xale yi. ñun xam na ñu nekk ci commune rurale Ronkh nekk nekk très enclavé enclavement bii nii moo nu jural lépp luy problème yi nga xam ne am nañu sunu mbirum santé. problème mu maternité lañ jëkk am ngir yàlla. ba tax na nag ñoom askan wi yeewoo foofu ci xën na jaaxle loolu di woote wàllu. ñu bëggoon nag lii lépp lu ci nit man jàpp état bi ngir yàlla. fii ci Ndar Babacar Niang pour si FM. Babacar Niang maa ngi lay jaajëfal nee nañu ay ndawam nee nañu ko ngaa dugg ci gouvernement bi waaye euh, doo rejoindre Macky Sall wax ji daal xaw naa xaw naa lëndëm muy ndaw yi grand parti di parti Mali Gakou dinañ ci dellu saat si suñu ay yeneeni xibaar ci la ñu namm bis bi ñu jagleeloon armée bi doon nañ ko màggal ni ki démb lii seen jéego ak seen taxawaay ak xemem teef gi ñu leen sas ngir xeex ak euh, li tënku ci sàccum bant yi ci àll bi euh, xibaar yi la jiitu démb àndoon nañ ci bu baax kàddu yi bàyyikoon ci colonel Amadou Moussa Ndir mi nekk njiitu njiital euh, commandant zone militaire numéro deux dégg ngeen ko ci xibaar yi jiitu ngeen di ànd xibaaru suba gi ba léegi ci kalame ko ci barma ci Zik FM premier rajo urbaine di Sénégal fukki simila ak juróom-ñett toftalu ci 8 heures Actu Sport salaamaaleykum Mbaye Mante Mbop. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Sénégal Guinée Bissau éliminatoire CAN 2022 yi am ca Cameroun. ñaari match la ñuy def. waaw ñaari match la ñuy def bu ci njëkk nag ñi ki tey ci ngoon lay am bu 16h jotee foofu ci stade Lat Dior mën na nekk nag jongante gu am solo ngir nag jëm ci wàllum eli euh, qualification yi nga xam ne mooy yóbbu nag euh, Sénégal euh, ca CAN 2022 ba tax na nag keneen di tàggat di Aliou Cissé jàpp ne daal ñoom ñu nag bu ñu amee ñaari poñ ñaari ñaari jongante yi ci amee juróom-benn poñ ci war yekk mën na nag yombalal seen qualification ñëw teewlu Aliou Cissé.

aussi à, à montrer euh, toutes leurs qualités pour pouvoir aider l'équipe en tout cas gagner ces, deux rencontres-là. ñu ma tànn samay football kat daa am naa ci lu wóolu kóoluteef ndax ci seen man-man ba ma man a gañe ñaari match yooyee loolee la wax. <laughs> ci ci li mujj ci nasaraan. ngeen nit ñi mën a comprendre bu baax toog la Guinée-Bissau nee ñu dey adversaire de taille la. waaw ah. moo loolu am na. ah adversaire de taille ndax soo xoolee nag euh, Guinée Bissau fu mu tolloon ak jamono ñu toll ndaxte ci ñaari kaani yu mujj sax ñoom teewoon nañ te waxtu wi nag bëri nañ ay joueurs yoo xam ne daanaka euh, ñoo ngi ci championnat européen. dikkaat na bu baax a baax ci boobu di équipe bu Guinée Bissau. ñan ñooy jurtu si noppi ngir jàmmaarloo ak Sénégal Guinée Bissau nekkatul outsider gannaaw ba nga xamee ne jogante ne ñaari coupe d'Afrique yi ni ñu génn ci atum 2017 mu doon bu njëkk ak 2019 ñu seetlu ni dikkoog Bassirou Kandé ci seen banc dafa defaraat group bi booba ak léegi ñoom ñi ngi defi jéego adversaire bu lien du Sénégal yi nekk ci defaruwaat convaincre na sax ñi ay binationaux am ñoom fan la ñuy jogante ñu mën ci ràññeeku ñëwug sax Mama Baldé bu Dijon Marcelo Diallo ca Espagne Joseph Mendes senior ci Ligue 2 bu France Alexandre Mendy bu Caen Carlos Embalo bu CAS Open bu Belgique Moreto Gassama bu Reims Banjangi di jongante foofee ca Portugal waaye Alpha Semedo mu di jour boo xam ne ñu ngi ko doon xaar du ci bokk ndaxte fa am jafe-jafe ci wàllu administration ci ay kayit jour bi nga xam ne Benfica moo ko rek ablé foofee ca Nottingham bu ñëwoon bii mooy njëkk muy jongante ak pays d'origine am Guinée-Bissau am ay résultats yu bokkul bi ñu dooree éliminatoire yi ak léegi benn ndam ak benn défaite la am ñoom nag ñu Sénégal mi nga xam ne jot naa am ñaari victoire ñu jàpp ne war na noo mën a yeewu ci kanamu vice champion bu Afrique bile di Sénégal. soxna Fall mu mel na nag kii tàggat gaynde Sénégal yi di Aliou Cissé xam na nag li leen di xaar seen digg ak ñi di waa Guinée Bissau ñëw la ba tey kii di Aliou Cissé. c'est un adversaire qu'on connaît. Guinée-Bissau adversaire bu ñu xam la soo xoolee ci ñaari camp yi mujj rek am na si taxawaay bu am solo ci diggante bi am na ak progression buñ ci nemmeeku ci équipe bi bëri ci ay joueurs yu évolué foofu ci Europe surtout ci Portugal. a am nañ respect bu baax si ñoom ndax gis nañu ne am nañ taxawaay boo xam ne mën nañu def yenn ci ay performances yu am solo ñun euh, nag ñooy Sénégal kon ñun ñoo war a mën a wane taxawaay bu am solo suñu digganteeg ñoom te nii kon am nañ yaakaar ne war nañ mën a génn ci ñaari jogante ñu jëm ak ñoom. ñu wax ci Ligue 1 calendrier bu saison 2020 2021. waaw ni ki démb nag la Ligue sénégalaise bu football professionnel fësal calendrier saison 2020 jàpp 2021 jongante gu ci njëkk nag bokk na ci ci choc bu ñu a xaar ci diggante Tëngéej FC ak ñi di waa Casa Sport yeneen jongante nag jëm ci première journée bi bokk na ci jàmbaar ak ñi di waa Ñaari Tali Stade de Mbour ak Dakar sacré jaraaf bu ndakaaru ak ñi di waa Mbour Petite Côte douane ak CNEPS excellence bu Thiès Ndiambour ak AS Pikine US Gorée fas yéene ci laale ak ñi génération foot di fàttali nag ni championnat bi dinañ ko tàmbali niki ñaari fan euh, ci euh, weerum janvier ci atum 2021 Haj kon fii la ñu ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram maa ma antam boobu ñu xool si xibaar yi. Master Office gën ci mobilier de bureau mobilier